bés ci Zik FM di journalu faits divers yi. suba su ne suñu tere di mu jotee altine ba àjjuma tës di xew-xewu jamono ci biir quartier yi. tës di ay faits divers yu ngeen di nettalil sen bopp. yéen ñi suñuy auditeurs. tës ak Ahmed Aidara. asalaamu aleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bu baax laa sant bu baax a baax tàkk la bu baax tàkk la maa fii ci loo ne maa ngi sant alhamdulilah alaaj tey sa journal loo ubbee euh, tey waaw commentaire wala avion bi wala mbas mi du mbas mi. waaw mbas la kay. mbas mi la de. mbas mi la defe naa de ak tabaski waaw waaw waaw wax nga dëgg waaw ak tabaski ji waaw ku ne di jullee fa nga nekk xuma. ah waaw waaw waaw waaw. waaw. waaw checking bu. te bu daal alaaji altine daal la ñu jox rendez-vous. waaw kay dama war ñëw defar sama list bi ñi nga xam ne damay ànd ak ñoom. Binda. xaaral ma xool kadda liste man. voilà Siré. Mm. Euh, Birahim. Mm. Fofana. Alaaji Mansour. Amaman. Ahmed Aydara. Yacine yaakaar naa kaw ga jeex Birahim. Mamadou Fofana Mame Mbaye Ndiaye bind naa ko. bind naa Siré laa tàmbalee. Pape Anta Mboup. Euh, Pape Anta Matina hmm. ah. Maba. MD. MD. Chimère. déedéet Chimère ci la. ah ci ah. kii. su ma la tasa son di génn de. kii waa ji. asta. asta. ah asta la tudd. waaw. Mhm. geneen gone bokk bokkul ci ñun. kooku bokkul ci ñun. kii kii def kii kii def. masinaa. waaw mm-hmm. suba teel. Mm-hmm. suba asta. xaaral un deux trois quatre cinq six sept huit douze xar laa calculé woon alaaj bi waaw man nag non non non yow waa rajo bi nga. ok du ma ci wax. <laughs> man laa bokkul. abaaye ah, ah, kon kon gerte kon bëgg bëgg bëgg. moo de. Abba ak Pape Alé. kon génn sama tur. ah, ah. yow tamit yow da ngaa ëppal. Eh, déglu yow yow duggoo ma lay wutal. ah ma lay ëppal waaye. waaye kii moo ëppal waaye. ma lay négocier nga. yow day eh, fàtte woon naa la yow day fàtte yow. Eh. ak ak góor montor la. non non defal ndànk liggéey nañ horloger Bijou Ndeye Fatou. Ah, yow ma lay Ndeye Fatou. pour dugal la ngay ngay ngay. Awa Seck defal ndànk rek defal ndànk Mantulaay. papa Mansour bu ñu ah. demee ba dugg. waaw bu ñu demee. waaw ba yegg d'accord. Mhm. su ko sécurité bàyyee mu am première chance am. su ñu demee romb ñoom yaay tuuti ak. bàyyiwul man du ma dugg. ah man day fi mu nekk nii alaaji. bu ci pël nag yaa tuddee damay dugg. man day réew mi cate na cate goo xam ni. ma dem. bu mu mën sóor demul it ndokk. man daal ànd ndokk déglu ma kon ah. may dem te ànd ma ma. da ngay dund te am nopp yow. léegi da ngay dund te am nopp. yàlla ma yow ma da ngay dund te am nopp yow papa yow. ma góor di ci dund. Ah, ok ma yaakaar dañoo bari. Mm. ñaari xara ngi foofu taxawaalu ma gàddu yóbbu léegi Siré Birahim Touré Mamadou Fofana ku ma tudd sa tur nga ne président dégg ngeen monsieur Siré Ly Siré Sédhiou Siré dama koo bëgg Birahim Jaaji Touré am nga xar Mamadou Fofana Fofana da jaru ko Alaaji Mansour Diop am nga xar. gi Ahmed Aidara. am nga xar. ci bu tànk ak la koy togg. takk buum. <laughs> ah <laughs> am nga xar. am nga xar. Pape Mante Mbuub. <laughs> am nga xar ci bu tànk. Maba Jaxu Ba. Mm. am nga xar. tibb tànk. MD mm-hmm. technicien. waaw MD. am nga xar tibb tànk. Alaaji Simeer Diop am nga xar tibb tànk. Mm. Astar maquilleuse. Astar am nga xar. jaata mm-hmm. la sant. Mm-hmm. Bijou Ngone. madame Ba. am nga xar. Ndey Faatu. mi ci kafe gi meew mi. góor montor la. am nga xar tibb tànk. awa sekk am nga xar ci bu tànk. takk buum Mantoulaye Thibou Ndoye am nga xar présente. aywa la koy togg. non non non. ak lóp. non non non. ah papa. donc bëgg ngeen déglu dama bëgg a def ay précisions yu leer leer leer. Pauline daal Pauline daal nee li nga am tuddal naa la ko. Pauline nee na. Hmm. waaw nañ ko def délégation ñaari délégation yoo xam ne bu ne quatre lay am kon wàññi liste yi am na ñooy wàññi. dama am na ñooy wàññi. ma ni ma ni man bu ma wàññi de. fu délégation bu. dama lay wax rek fu délégation. man lay wax rek eh, bureau bu délégation bu ngir gi neew xaj xaj nañu fa. bu bureau bu. dé délégation ngir gi neew. boobu commune ñëwut woon. <laughs> waay bu yabu. délégation woon fan la woon boobu sax la woon ñun dis mani la wàññil duñu ko wàññi de non non am na ñoo xam ne seen xar dina ñëw mais nañ leen wàññi ci dem bi mani duma wàññi de mani délégation bu waa ngin gi neew xaj xam naan sama ma demulee xar rek laa maa li ci topp duma ko xaj nañu fa ay nag kenn Nations Unies. dafa ma dem jàkkaarloog tibb. yaay booy maa ngi lay <laughs> nuyu maman Ngénaar. wa père Diouf Diouf Diouf a ñu ko bàyyi. na may ragal lu na war a jox jëndee na ko essence. wër na réew mi lii. waaw wax nga dëgg célibataire la ñuy wàññi. voilà. léegi. kon ñu wàññeeku lu bëri de. kii de nee na waxal maam jaara bokk. Hmm. man lay léegi. Hmm. grand Badou Niadé nee na président cité Aliou suba. di alaaji. suba di altine altine ci. président. tibb tànk Sénégal tampi. yi Fouta andaale bi muy ñëw. ba <laughs> mu jaarale naa Fouta la ñu koy jox bopp de est-ce que ma yàlla ñu koy xar mu ñëw fii ñu ko jox. jaay li ma message yi yëpp sama xar sama xar ñii ñëpp. ñu ne lan ñëpp de ne ku bëgg dem bind ko. déedéet yow asu daa ba ñeme nga maa laaj xar yow. mii ah, yow mii di eh, sëy weekend ba weekend. Ah. bàyyi leen jàmbur bi. Ah. bàyyi leen sama jigéen bi. waaw mais alaaji. ah kii nee na ma ñiy seetaan ak di déglu nag. moo ma jaaxal nañ seetaan rek. <laughs> nañu seetaan ñu ñuy jox. ak yow mu jaaxal de. am na yoo xam boo ko bëggee lijjanti du sotti de. kii nee na ma président depuis caserne Samba Diéry Diallo. réew mi nag président nañu nag. jox leen leen xar sama sama bi mbay jow nee nañ ko bindee. te ah. kat liñ nga xamul nag mu nekk nii. waaw. ña doon. Pauline li ngay déglu lépp jottali ko bu ah Ablaye Fall. Ah. Taysiir nee na maa ngi nii présent déet waaye yow. Mm, mm, mm. may xar. Eh, eh, eh, voilà léegi ñi ma tudd kon seen tur yi yaakaar naa ne leer na dinaa xool ba xam dinaa mën a sànni ci biir benn caméraman comme que ñoo fi nekkul te xam naa ni Baba Diaw lay ne mais c'est pas sûr. parce que man dañ ma war a jox liste alaaji te bindu ko seize douze personnes lañ ma waxoon. te bindu ko nga ñaata. bindu naa seize. mun nga dem ba trente foog naa de. seize foog naa te douze lañ ma de dem ma altine. altine dem gi sax mën nañ leen koo baal. fu tës bi jeex. ah ma. Eh, eh, da ngay may xa. tey. Ah? tey de ñaar. tey de tës ñaari ah, xar yi may eh, may na de du ko jël. ah. duñ ko jël est-ce ko jël benn yoon. déedéet bàyyi ñu woote ci serveur bi nga may leen ñaari xar. waaw waaw nañ ko jël. lu koy jël yow yow da ngay def opération takk buum ci tànk. dig nañ la xar ak la muy àndal. non dina neex. buntu buntu baa dara neex suñu dugg rek. waaw yow yow mii di man mel ni man ci laa bokk naan xar nga may ñaan xar. wax dëgg yàlla man tamit dal naa xel dama mel ni ci ah, laa bokk naan ay dañoo cour d'appel. Ndeye Ndiaye nam naa la yow de da ngay maye xar yow jóobu juba. ah bon. ay dañoo cour d'appel. waaw kii kii kii kii mooy maye ay xar waaye xanaa kii kay. papa. Pape Alaaji dégg mu naa ma tànk rek nga may jox. Pape Alaaji xamal leen ni ci serveur bi mën nañu woote à tout moment jamono jii. acca woote leen. 88 balaa muy jeex. 88 628 89 90 ba leen bësee 1 fii ba émission tës di jeex. dëgg la Chimère Diop dana daal di nag euh, seppi ñaari numéro bu ko defee nag ñu may leen ñaari xar. balaa tës bee jeex ñun nag suñuy xar moom suba ca boppam kon lañ koy jëli suba altine alaaj suba altine suba samedi la <laughs> yaa astu seen waxuñu ko de alaaj dama yaakaar Mohamed Diaw yow Mohamed Diaw sama doom ji loolu moo tax ma ni leen aajowul kii waaw màgg baax waaw aajowul aajowul sax dem dem d'accord non non non mën nañu ko yónni xare xare ah, ñu ñu jëli xare bu nga naan ñu ko yónnee non non ñun damaa demoo demoo hmm? ñu ko yónnee kii dama àndul ak moom man damay demal sama kon alaaj non non kii di ma yónnee message nii naan ma booy dem nag ma xaar. déedéet altine dañuy dem d'accord de. man damay dem. aji est-ce que laaj dañuy jëli suñu xar nag. laaj koy jëli nag. kii de depuis Luxembourg la naan ma présent. ñun ñoo ko moom nag <laughs> mu ne lan. waay. Grand Dakar. tout cas waaw man daal li ma wax leer ba mel ni midi. Hmm. waaw leer na de ci ku bëgg a dégg. waaw man moom nit ñi. daal boolewu ma ci coow lu bari. mais comme rassemblement dañ ko aay nag àllaaji nga foog ni itam mënuñu woon a xëy def ko ci enveloppe jox ko Babacar mu ñëw séddale jox la ko mu séddale ko gars yi. rajo bàyyi ñu dem rek nag ñu yàq dem bi. ndax xam naa ne moom boo jàkkaarloowee ak moom. di nga xam di am xaral gi ci topp. rassemblement bi itam. te bu dee Babacar da la ko yónnee tamit àllaaji. parce que dëkk bi delta moo fi nekk te dégg naa ñu ngi fi annoncé lambda. alpha ak beta. beta ak goma. delta. delta beta ak goma. waay bàyyi leen naan eh, delta delta yéen a ngi ñàkk kersa ñàkk dugg fi rek ni ceex 30 pour cent yi. sama xar nga may laaj xar direct. yàlla du xel de. waaye yéen du xel. Ah, yàlla du xel de yàlla. ah sew ma ko nit. waaye dëkk bi dafa corona. il faut leer nga leeralal leen ni xar yi ngay joxe ci ser nii woote ci serveur bi nga koy jox. Fall Kanji. moom it Pikine Abba ah, dimbali ma nga may woo. foofu la chimère di tànnee ak les deux numéros jox leen woote leen ci 88 628 89 90 tey nag balaa tës bee jeex incha allah rabi danañ fi dugal ñaari may leen nag euh, ku ci nekk xar moo xam ne kon di ko tabaskee. Mm-hmm. voilà jarul ngeen may woon ak sama téléphone ak di ma yónnee mm-hmm. message mm-hmm. woote leen directement ci 88 628 89. 90 euh, voilà. merci beaucoup waay. daanaka wuy ma dem bi altine la dégg nga. maa ngi lay voilà kii de du dem kii du dem acca ah, ah, euh, woote leen nag maa ngi teg premier test bi alaaj mhm. test bi nag waaw test bu njëkk bi sax waaw géejawaay football club ak Linguère démb ca Ndar la xew Euh, aduna ñëpp a ko naqar. parce que football nag vraiment li Youssou Ndour naan football moo mën a boole. dina boole nit ku ñuul ak nit ku weex rawatina ak. yéen ñëpp ngeen nekk ay doomu Sénégal. waaw ay jàppal bàyyil daal ay xeex yoo xamante ni daal. ci dëgg-dëgg daal yooyu daal. waaw nga ne ndar nag boo bëggee dégg dëgg nag alaaji nag mooy mooy daal lañ ko xamee. waaw kon nag euh, football bi. bu mu dikk nag euh, ba am daal maanaam nu mu def te bu ëllëgee tamit waa Ndar. Mhm. danañu ñëw fii ci Ndakaaru waa Géejawaay recevoir leen. dëgg loolu dëgg. waaw waaw te Géejawaay nag vraiment ku leen am ni gan ak ni Géejawaay xewee. ah waroo def nag dara nag lu dul teral leen rek. waaw gan li ganal leen. Mhm. waaw bu ko defee nag ñu daal di daal euh, doxal. Mhm. bu ko defee ñu bañ koo def nag euh, mbirum émotion bañ koo def mhm. mbirum far. man géejawaay laa laa laa bokk rek ba tax. Euh, ngay wax loo xam ne day gën a lakk daay gi. wala man sama équipe lañ fekk si fii si ndar waa géejawaay tey duñ fi génne jàmm. génnewuñ fa jàmm ndax dóor nañ leen 3-0. waaye nag door yeeg ak tëj ca biir. versaire yaag yooyu. yooyu daal xam naa ni daal dana xajamal football bu ko defee daal nañ ko rafetal. waaw dirigeant yi itam li mooy ñaari côté yëpp. Euh, ak ligue beeg fédé bi ndox ci tànku jàmm. ba nga xamante ni bu déwénee te ñun ñaar ñëpp tam ñoo yëg ligue bu déwénee tamit danañ laale. du noonu wallaahi comme que man si ay aller retour. Mhm. ñu defar diggante bi daal mu ratax. Mhm. ndax li fi xewoon diggante stade de Mbour ak Wakaam nit ñi alaaji fàttewuñ ko. démb li fi xewoon diggante Saloum ak Guédiawaye football club ca boobu Malick Gakou nekkoon président GFC. Euh, loolu sa liggéey bi nag ay war a ngi ciy bëgg a am. néew naa leen duma dem. ay war mu ngi ciy bëgg a am. barke rasulillahi lan xari tànk bi mu ngi ñuy waaj a war. non non non arrangement li nga def waaye ma rasulillahi non tey la ñëpp ànd ak moom. kan bëggatu tànk bi kan la ku fi tibb tànk. waaye bàyyi li nga wax waaye Abdou Diop. ñoo jox voilà jotoo message. borom unité 3 non non bàyyi li yooyu waaye jotuma dara jéem ma jot dara. xoolal waaye ala du ma la ko xoolal. non non bàyyi li yooyu waaye. nee na nii di d'accord mais yéen. sax est-ce que soxla ngeen ko ndax. waa mais bu bu ñu fayee sa bu ñu fayee côté lu mu jot a kii. non non non waay waay waay waay eh, waaj am. yow xoolal xoolal Pauline ma leen ma expliqué leen déglu leen. Eh. jël nga ci. moom ak jot naa ko. ma ne ma ne ko direct. xoolal Pauline yaay la <laughs> waay yow léegi nag yow léegi nag salaire yi léegi dolliwaat ci sax nag. Alaaji wóol bugaan. Eh. Euh, léegi. boo boo woowul bugaan ma léegi yéen ñi nga xam ne yàlla dafa dogal. ma xam li na ko. Euh, am ñu leen yoreel bor fii ci kër gi. incha allahu rabbi tey ci digg bëccëg bi. bàyyi euh, waa D-Média dinañu fayeeku. waa D-Média dinañu fayeeku képp koo xam ne. sa bor boobu nga yaakaar pour tabaski ci njegesil. nga ne lan. képp koo xam ne. am na kuy liggéeyee D-Média. ku la ameel. Actunet la wala Tribune wala seen TV wala Zik Zik FM. Euh, yàlla dogal. mu yore la xaalis da nga amoon ci xaalis ba yaakaar. ñëwal ngir tabaski. waay waaw tey bu ñu julli jee juma ba pare. Ah, au plus tard. bàyyi yooyu dix heures midi. bàyyi non non man maa ko xëcc ba nga xam ne doo am lay. bu ñu gisee ji dañuy daw. non non maanaam nii nii may nii nii nii nii virel nañ leen seen salaire yi. léegi léegi dama bëgg a laajte salaire yi salaire ban mois la. mois bii di ñëw le seize nii. waaw. kon le premier nag. bi ñu ne nii. nee na doo fayeeku de. Ah, ah waxoo jàmm di. ah déet fay nañ la ndax tabaski bee tax ñu fay la. Ah. na di. waaw. tabaski bee tax fay de. kii gas daa teel a fay salaire fonctionnaire yi. kii tibb tànk kii itam topp ko. Ah. <laughs> ñu toppandoo de sax sax. ak a mën a tibb fonctionnaire yi sax moom. ak a mën a tibb moom avance tabaski la fi wax. joxul joxul kenn dara avance tabaski te ku ko jël bu ëllëgee mu dagg la. Baye Malick ñuy tiitaroo. or cinquante millions mu def ko cent mille francs gars di ko tiitaroo. def tuus dara la fi def lii waaw léegi nag. Euh, Adama Kanji bàyyi ma. léegi nag. Hmm. kon léegi mi ngi noonu sant yàlla alhamdulilahi rabbil alamin ñun de fayeeku nañu. waaw léegi waaw waaw. yéen ñi nga xam ne yàlla dafa dogal ne am na ñu leen yoreel bor di liggéey fii. Eh. boo leen fi mënee doxantu si balaa ñu leen rëcc. Eh. ngeen xam ko nekk heure am nañu am nañu ëppal nag. tey daal avant 16 ah, heures daal ñëpp dinañ jot seen salaire daal. Ah, xanaa xanaa xanaa ñi di ma fayeeku. ah Omar Ba di ma fay man ko man ko amelu ma kenn bol maa ngi nii. Ah, Omar Ba ba pënu. ah xam nga laaj kañ laa ko def. Ah. ah déedéet ala yorelu ko daaw ba léegi dafa ma ko yorelu ko ñaari pënu. <laughs> Omar billaay amelu ma ko pënu. non fay ko rek. non waaye alaaj bàyyi jaxase dëkk bi Omar du la fay. Omar bi yow fu mu la amelu billaay amelu ma ko bëgg bëgg maa jaxase ak àdduna. ah déedéet déedéet alaaj nag déedéet Omar dina du taalibi sëñ Tuubaa. léegi dina jaxase ak àdduna waaye. non du amelu ma ko. ah déedéet alaaj xanaa dafa foog ni da nga dinaa so non dinaa soxla pono fii ak ay fan mooy dànkaaf. non non non yàlla xam ne amee lu ma ko pono. boo ko yoree pono nga jox ko. yàlla xam ne amee lu ma ko pono. wuy ma wuy ma pono yi la yaakaar pour. man daal kenn message ne na nga koo yoreel pono. wallaay amee waatal. billahi billahi amee lu ma ko pono. te defe naa ne alaaji ñaari at yoo xam ne defalu ma pono. ba ma ba ma taxali ko oto kuuj kuuj laa laa gëj a defalu pono. samay salaire ëpp na cinq samay bor ëpp na cinq moo tax ma noppi. léegi ah. voilà. <laughs> Lamine valorisation maa ngi lay nuyu. waay waay Baye Ndiaye mi nekk sa bon di ma laaj. xaritam fan la xar mi di jaar waaw ah Baye. Euh, Baye Ndiaye Euh, équipe tës ñun ñeent lañ mais dañ fa am ñetti xar. ah man de mu gën ci yow de. alaaji. ah équipe tës. ñeent lañu. waaw. mais alburaax sama rakk ji. waaw mhm. Baye def ñu may ñetti xar. loolu nag dañ koy ji fii jaafaa jëf sa jëf a jëf a jëf. waaye ah, léegi dénk leen ma ko mu lijjanti. <laughs> non non non non. alaay alaay ah Baye nag moo ko tey bëgg naa ci sa équipe yow yarkatu euh, euh, jur gu mel ni yow ku lay dénkub jur. Eh, eh, loolu moom bàyyi ko tey moom. non non tey teyu ko de. Ah. non non non teyu ko de man maa ne ko. maa ne ko ñetti boobu kër fa ne. non maa ne ko. waaw ne woon fóon. waaw xar mi nga ma jox daaw joxaat ma ko ren. waaw. mu ne ma. ak Mansour. mu ne ma amaat nga fa sax yeneen ñaar. kon muy ñett muy équipe test bi. ma ne ko déet. Ah. ñun équipe test bi bu ñu toogee. ca ginnaaw verre am na ko fa toog. waaw wax dëgg dollar boo ko joxulee mu ray ñu. sineer Diop ak ngeen fa jàkkaarloo te barki alaaji Malick boo ñu dof dof loo lekk fi ndawal te jëlu ci ca dollar ca dollar mooy suñu dee ñu ngi la yàq. léegi nag léegi nag su ma paree dix heures. Alburax Hollywood mi ngi nii. dem liggéenti lëf loolee. ah waaw bu dee nag jar na ko. il maintient le trois a xoo heure xar day xoo. waaw bu ko maintenir ah. dëgg dëgg nag alaaji. Mhm. ñetti géñooy yor kër. Ah, ay waay sàmm. looloo looloo jaadu sax nag. borom kumba kon sama bos ngay de sama bos ngay jël jox ko gan. déedéet non yow nga mën a. Ah, taxawal rek. alaaj taxawal. borom kumba si. alaaj taxawal comme que dañ ko yóbbaal. waaw kese. ah dañ ma yóbbaal te bàyyi lim ah bàyyi nag dalaa lim de. bàyyi naa leen ak yàlla. bàyyi dalaa lim. kan la limul ko. non non non dana yéen ñett ñi def tës ñi toog la wax. dafa fàtte chimère. ñun ñett ñi def tës. nga tax ngeen ñuy déglu te ceddo la. <laughs> alaaji jàkkaarloog ñun ngoone la Ngone Latir man de bokkuma ci. génne jaase altine faagaagal ñu yàq tës bi def ko muy dara. te daa yor ay rab. billaahi bokkuma ci. chimère day yéeg di wàcc. man bokkuma ci de. billaahi bokkuma ci. bu fekkente ni bii amul man bokkuma ci waaye ñu lool woon loolu. ah ko def. boo génnee jox ko si maire de. yéen ñaar ñi <laughs> ay ma alaaj ma gerte daa am. alaaj déedéet alaaj déedéet waxal lu la. gerte jox ko garaaw. Ah, déedéet négocier leen ko entre yéen ñaar négocier leen ko ci weer. déedéet négocier xam nga xam a nga Baye Ndiaye xam nga sama xarit nag. waaw ah, Baye Baye Baye da sama waay moom moom mënu maa gedd dëgg dëgg da nga ci moom. Didier Touré depuis France waaw ah, kay waaw léegi alaaj waaw ah. xaaral ma teg premier tës bi rek bu ñu dugalee élément bi ma woo Baye ci suuf. parce que loolu aussi day na xaw a. non mais alaaj bala ngay woo Baye nag foog nga wax nga wax nag war yi nar a bàyyeekoo. non non non non yi les salaires n'ont rien à ak ak ñi loolu bokkul. ah non non non non non non man bind naa saisi ba pare saisi nag. saisi nag conseil constitutionnel moo koy validé. naka jekk nag ba mu la ba ma xëy ba mu la ba ma xëy lundi la sama xel commencé tey. non non non garaawul on gère. dégg loolu alaaji. waaw dagg nga mën a kii CFC ak Linguère waaye daal la fa xew daal mooy loolu suba aussi samedi 15h. waaw mhm. voilà littoral ba. ñoom Papis Sabali sama grand frère ak ñoom euh, Michel. ak ñoom euh, Alassane euh, voilà gars yëpp daal ak nit ñi ñëpp alaaji dañuy organiser benn caravane. Mhm. pour wax Macky Sall nag no waaw loolu muy déclassé daal. Mhm. du fi am tey te du fi am ëllëg nag foofu ci wàllum littoral bi dañ koy caxa caxa tey filaawo yi. waaw suba nag moom mooy caravane bi. à partir de quinze heures. Mhm. ñu jógee nag euh, fële. ci kaw wàq naan Nimzaat nag euh, wàcc kon ci martal mi dugg si ci biir dëkk bi. Mhm. képp koo xam ne kon ca tund woowu nga dëkk diggante Kër Massar ak Malika ak Géejawaay ak euh, parcelle. li ko wër li ko war ak yëpp daal woo nañ leen nag suba. ci marche boobu nga. Euh, caravane de sensibilisation lay nekk mhm. nag ñu wax ak kilifa ya fa ne ak tamit ki nga xam ne mooy njiitu réew mi di ndayu mbilli gi mhm. voilà léegi mhm. nit lañ rey ca tuuba loolu mooy lanati saret dawal ko saret saret bi ak saret bi moo ko rey moom leen rey non moom dawal ko saret bi ci leen rey ah borom saret bi leen rey rey bu xaw a doy waar nag yoo xam ne moom dafa xaw la jekk daal ci nit li waaw Jumer mooy lan jox ñu seedey waaw ah, li fi xew de suñu xaadim ñu ngi nuyu ñëpp di masawu ñëpp leen bokk fi xew moom wax dëgg yàlla lu metti ñëpp la doonu tamit lu ñu gënal waaye Moustapha daal xëy na fii takk dem na ma maa ngi dem te ñëw saratam saratu mbaam xëy na ma maa ngi dem te ñëw man ko waa ah, baax na dikkee am lu ñu àggale mu ne ma waa ah, mu takk dem mu takkee dem ma tëdd na ko tey xëy tëdd man man tey xëyuma ma tëdd sama néeg ma tëddee ba maanaam ay heures yi onze heures jàpp midi sama soxna yeema na ma tafaade dawal xeex bañ jëm ko. ma ne ko ah toujours rek bi loolu lan la. Ah, booba dafa ma ab sëkk bu doon sëkk si buntu kër gi. parce que sama kër lay tekki saret fa lay tekki saretam ma ne ko léegi boo àggee commencé woon na ko sëkk léegi boo dikkee boo dikkee ñu àggale ñu àggale sëkk bi a ma waaw waaw loolu lañ doon àggale mu ne maa ngi dem te ñëw man a ko baax na maa lay xaar mu dem mu demee

tàkkusaan nga ñëw ma toog añ ba pare tëdd ma dem heure tàkkusaan ñu woo ma gaañu na bi nga ci ko waaw garage ba woon na ma téléphone ñoo ko ñëw nañ si man kaksóor bi muy Juuf xam nga ñëw na fi Aliou ñëw na fi ñoom Baye Adama kan président bi ñëw nañ wax ma lépp ni mu demee ni mu demee mooy booy bi dafa am ku mu lebaloon deux cent ki mu lebaloon tafaa dina fay waaw tafaa ne ko la fay mu xëy suba di ñëw di laaj da dafa garanti woon waaw ko dinaa la fay mu xëy suba ñëw di laaj Tafa deux cent yi Tafa ne ko damay doog a xëy yoruguma deux cent bàyyi ba si kanam mu ko da nga ma ko jox Tafa ne ko mënuma laa la ma yorul da nga bàyyi ba ma ba dem ba di ko histoire ñu xeex ñu attal kon daal xeex bi li ko war mooy dafa dafa euh, am ku ku ku doon leb deux cent waaw bi ko lebee deux cent tafaa ni ko lebal ko man dinaa ko gaar ah, ki moom ameloon deux cent tafaa ne ko dinaa la jox tafaa moom deux cent yi jëm si moom mais def na ko dinaa la jox léegi bi ne ko la jox mu ñëw di ko fay mu ne ko yoruguma ko bàyyi ba si kanam parce que damay doog a xëy yebaguma boobi ko danga ma jox mu ne ko yoruma ko histoire foofu xeex ñu atte leen bi ñu ndax xeex ba yàgg noonu la yàgg xeex ba yàggul danoo xeex commencé dóorante rek booy daw àttale booy bi daal di jéggi tali dem na ko dinaa la euh, rey dinaa la jam dinaa yàq sa saret dafaa ne ko maa ngi lay xaar dafaa toog si saretam booy bi dem jéggi tali dugg biir marché taxaw fa taxaw toog ba mu yàgg mu ñëw ndikee na bu paaka bi si mbubbam ñëw fekk fi tafaa taxaw booy na ko tafaa dawal tafaa tourné yam tasante boobi di ñëw mu daw song ba jam ko ana fan ko jam ak ko jam si ginnaaw la ko jam ak si wér gi waaw noonu la waaw léegi loo ci xamaat ah li ma xam de wax dëgg am dafa am xam ma si moom dara loo xam si lu ñaaw lu foofu foofu wax nañ la ci wàllu ñi nga xam ñoom ñooy sapeur dañu gaaw a ñëw wala gaaw na ñëw wala déet wala policier yi wala foofu nan la liñ ma wax ne nañ ma sapeur ñëwul dibiteeri Mourou Mbaye dafa am benn gendarme bu fa loose si kaw étage bi xam histoire bi amee moo wàcc ñëw jël taxi si taxi yi gaare foofu jël ko dugal ko si yóbbu ko sàppoor yi la dem kon sàppoor ñëw ñëw. sàppoor ñëw mais police bi gendarme bi monté bi ne luwee foofu moo wàcc jël taxi dugal ko si yóbbu jox ko jox ko sàppoor yi noonu la demee. ñoom ñaar ñi ci tënk ay ñaata at lañu a am. Ah, moom xam naa daal war naa am war na ñaar fukk ak juróom wala ñaar fukk ak juróom-ñett yooyu daal war ko am. Mm-hmm. a fa bokkoon man xaw na maa gëj arrêt ba. waaw man man maa fa ne woon waaye xaw naa faa en yenn saa rek ma jaar. foofu foofu amuloon seen diggante ñoom ñaar yu lu ñu seqoon avant histoire bi di am. waaw li ñu seqoon mooy dafa moom booy bi daan na fa ñëw mais booy bi yoru saret booy bi yoru saret moom newuloon si arrêt bi newuloon si arrêt bi mosu fa am saret mosu am saret amu amu fa saret amu fa tableau mosu faa nekk amaa Kër Ngunda yaayam lu jëndal na fas ak saret mu ko saret booy bi liggéeyul ñu jaay fas ak saret bi mu nekkaat si saret yi fas ak saret nanguutal liggéey ñu jaay ko booy moom loolu man xam naa ko si parce que maagalu Touba man monté naa garage muy këf ak jigéen ma dal si booy di ko défendre man leen ko fi défendre maa yow dinaa la ba tëdd sa kaw parce que booba maanaam dafa doon këf ay passé jigéen ñi si màggal gi pour seen saa yi di ko këf ma dal si kaw mën ko fii di ko fi mais fii doo dafa doon ñëw rek waaw ah, d'accord mais xam nga yu mel noonu ba mu dikkee wax naa xool li nga xam si maanaam moom laa sañ mais ki dikk si xam lien public la ñëpp ko bokk mënoon na ko fii dem fi jóg parce que garage dafa yaatu mënoon na ko fii dem fi jóg arrêt bi li nga rëdd a arrêt beeg mbaar mi a nga doog doo fi taxaw mais foofa dafa yaatu bu demee toog ne doon ko fii da nga fi jóg bu amoo droit boobu xëy kay nga ne ko demal te ñëw kay kooku wax dëgg yàlla bu fekkee ne dem nga ñëwaatul sa xol dina tàng da am loo métti faj baag loolu wax dëgg yàlla dégg naa ay jàmbaar la man nag dema woon loolu xëy na ñi demoon ñoo ko gën a mën a leer waaye man ak ma woon rek waa Sig euh, FM sant maanaam mboolem journaliste yi ak euh, mbokk yi xarit yi am jàmm yi rek rawatina waa aree ba ñoo fa nekkaloon bari na si ñoo xam ne wax dëgg yàlla am taxaw nan taxawaay bi si war dëgg yàlla am ñu sant ñoom it yéen gërëm rek. chef moom fi mu a nii ma nga sa aree ah, moo fa nekk moo fa loo ci mën indi ci lu ñu mën a xam. waaw ah, salaamaaleykum wa rahmatulah. Ah, yéen waa Sud FM mi ngi leen nuyu baax di bu baax a baax. di leen yi nag ci lii nga xam ñoo ko bokk mu dal suñu kaw. waaw Moustapha sama rakk la. waaw papaam ak ñoo bokk ndey ak baay sama rakk la waaw waaw moom nag li xam ci moom mooy jàmbaar nangoo liggéey moom moom liggéey dong lan xam ci moom waaw du liggéey du ko def waaw yow magam nga ah. si bis bi bi mu ah. tey ni ni ni maanaam bi mu loo ci mën a wax loo xam ne xam nga ko ci euh, Moustapha bi nga wax moom lañ dem xam nga nag man man dama damaa génnoon nag damaa demoon soow léegi dañ maa woone ma Moustapha papaam moom woone ma Moustapha jam nan ko ba mi ngi irta man gisaguma ko ma ne ko kon ne man damaa nekkoon soo waaye maa ngi waaj wëlbatiku bi ma demee wàcc bay waaj mu woo ma ne ma mujj na noppale ko ma ñëw maanaam loolu laa ci am bi ma ñëwee nag man laa te ñëwee ci sa arrêt bi mu daan rang lan ko jamee waaw las ko jamee léegi nag ñun loolu rek lan ci am ne jam nañ ko ci arrêt bi mu doon liggéeyee comme fi woon am na yoo xam xam naa duñ ko mën a waaw li ma ci xam daal mooy man dama ci am xalaat boo xamante si ne mooy ñi nga xam si ñoo nekk ci dëkk bi autorité yi man ci am xalaat ndax ñiy dawal sareet mbaam mbaam moom ñeenti junni la daan jar mbaam léegi si day jar téeméeri junni juróom moo leen gënal fas moo leen a oto ci lañ ci la ñuy liggéey boobu ah, ñi nga xam si ko séq war nañ koo bu baax a baax ba du yàqu autorité yi ci dëkk bi nag ah, maa ngi leen di ñaan ñu topp ñi nga xam si liggéey ñu di yàqal ñiy liggéey ñu artu leen ndax fi mu man technicien la technicien xamaat ñu Touba ñu gën a bëri animateur leen di gën mooy ñiy takk rajo yi ci jàng yi waa ngi dégg waaye ñin fii dajeel xale yi nga xam si ñoo nekk fii ci Touba te nga xamante si ne maanaam liggéey ñoru leen yàq moo leen ñor te kenn yoru leen su ma déggee day am ñu ñëw ci garage yi ci garage yi ñoo xam ne ñi ñoom dañuy liggéey ci garage yi waaw ñu indi fa di leen lor waaw ba pare buñ fa ñëwee comportement bi ñu fa indi baaxut bu fekkee ne dafa nekk xale yan façon comportement maanaam comportement bi ñu fa indi maanaam li naan ay kaana kaanal di sol tuba yi gàtt ah di fa indi ay jël di daanu ay yéesi ah di yor ay ngànnaay xam nga loolu miinuñu ko woon ci Touba gi waaw di yor ay ngànnaay yooyu dëkk lañ ko doon dégg waaye du Touba gi léegi yor ay ngànnaay di moo indi yii yëpp parce que lii mos am lan la mën a indi maanaam ay maanaam li fi am mooy comme nin jamee Moustapha gaañoo yooyu ak saali yu mu jamoon ci mbaar yi na xeet yoo xam si ne loolu la lépp loolu ko waral loolu rek xam si seen comportement bu baaxut te autorités yi seetaan leen ci bàyyi leen ci ndax buñ bëggoon mu deñ jàpp naa lu yomb lay doon njàng wàllum njàng mii ñu nekk ni xam ne njàng mu ànd ay tëgg dañ koy tere fii ci Touba léegi si ñu fi naan ko tere ku ku fi tëgg dañ lay jàpp xam nga loolay guddal la léegi dañ ne bépp borom rajo bu ñu fekk ngay animé jàng yoo xamante si ne dañ fay tëgg dañuy jàpp borom rajo bi te duñ la ko delloo léegi ñiy def xeet boobu borom rajo bu ñu dem ne dañuy luyee lu ngeen def ñu ne da da da dañuy jàngul njàngul lan la ñu ne dañuy tëgg dañuy tëgg ñu ne yow duñ la luyee si moo tax mu dakk fii ci biir Touba ba bërëb yu ndaw yu néew lay am fii ci Touba bu mel na Baye Fall ga doo fi gis njàng si ñuy tëgg léegi ñoom xam nga division boobu ñu jël noonu ba mën a am lool su leen neexoon jël ko ci borom sareeti mbaam yi ak borom sareeti fas yi ak képp kuy ba ne képp koo xam ne si ne la may nga nekk fii ci ci garage waaw képp koo xam ne ñu topp garage yi xale bu fa fekk ngay daanu ay ay gàngare yaasi ñu jàpp la yóbbu yaa ngi ba ci fii rek li tax ma wax fii bi rob bi ñëwee ñi fi doon daanu fii boote police bi ñëwee danoo daal danoo bàyyi daanu ba kon loolu du ay caaxaan dong ak reewande ñoo xam si ne kenn yorul leen léegi nag ki nga xamante ne yorunu ko yow mi ni yar ba nga nekk sa liggéey mën laa yàq sa liggéey ndax fekk ko xam si day xëyee ko wàcc yàlla dimbali ko mu am ay ay mbaamam la yoroon di liggéey di ci nga fekk ko ci arrêt ba yow amoo sareet amoonoo sareet ko ba jam ko lor nga lor ay ay ay mbokkam nag ñi nga xamante ne ñoo ci dëkk di autorité yi suñ ci jógut lii dana ëpp ay loxo waaw ndax a a ëpp ay li ci mën a ëpp loxo mën naa dem xam si rey ci yeneen réew mu dem ba yaatu fii te fii Sénégal ñëpp xam ne rey nit moom miinu ko fa rawatina dëkk bii di Touba waaw ay rey nit ak gaañ nit dugg si waaw ndax euh, boo seetloo ñaari si ne moo daanu jam boppam ci dër mus moom Moustapha mi ñoo gaañandoo ci hôpital bi waaw ba ñoom def nañ déclaration ne xam ne amoo fukki at taxawaal ñuy jàpp la nga dem jàngi ji métier wala nga dem defi leneen loo xam si lu daawul sere yi ndax ñi ci nekk ay responsable ay borom kër lan ci lañu suturloo ci lañ yor seen kër kon nag am na si bu ci duggee a uh, la man saa su ñëwee sama la waaye dañoo bokk man damaa dëkkee ne ci ginnaaw police bi saa su ñëwee sama kër dama naa ko na nga na góor góorlu baax a baax lépp looy liggéey même ak mat sax nga nekk jàpp soo ko gëmee mën ngaa dem ba xam si ne am na nga am sere xam si képp mu xam caaxaan yoru ko liggéey doo ko jor bu ñëwee nga mën ko jox sareet mbaam muy liggéey di leversi mu ca jot wërsëgam nga ciy jot sa bi da ngaa def directement hôpital bi ma jógee Dakar bi ma daan agsi fii ma ñëwee bëgg a dem euh, hôpital bi ñu ne léegi ko denc ci margo bi léegi ñëw nañ fii ci kër gi ci kër gi rek laa daal daal gis yor yor gi bi dem di ko waajal la laa laa koy soog di gis waaw ba ma demee ba hôpital bi gis naa ko waaw waaw waaw xanaa xol bi yéex rek xol bu yéex xam nga néew boo xamante si ne maanaam ña koy waajal nga gis lan ko muure am ay deret ak yooyu nga xam ne kii sa deret la sa la yéen a bokk benn baay loolu moom doo ci am lu xol bu jeex rek te nag loo bu fekkee ne jóguñu ci pour arrêté ko damay ragal ay fajal sa bopp dana ci am ndax xam naa ne xam ma de yoon nu ni doxale waaye kii nga xam si moo faat Moustapha ñun ñu ngi ci dëkk bi xool si ni moom mën a bokkaat ak ñun dëkk bi nan kii war a ngay def liggéeyam waaw xam nga dafa bari ñoo xamante si ne suñu jëflanteeg yoon xëy na am na ñoo xam si xamuñu yoon waaw waaye li ñun daal leen xam mooy euh, faat na ko yoon jàpp na ko bëggatuñu koo gis fii muy traîner waaw wallaahi. ok gars yi dañoo wala. wala ñu dem machine. KFC Expresso waaw kay ak seen wéef loolu nag euh, mooy euh, euh, suñu xarit yi nga xam ne nag. Mhm. ñoo safoo émission bi wóolu ñu wóolu leen. Mhm. vraiment ba may leen nag seen émission bu mag bi nga xam ne moom mooy tës. émission bi nag euh, ànd ak mbégte vraiment ànd tamit ak njariñ ànd tamit ak euh, xéewal ak tabaski ndaxte tey émission tës dana leen may ñaari xar ah, waaw kay 88 628 89 90 ngeen daal di bës nag euh, un bu ko defee nag émission bi may leen xar voilà xar nag taay moom xar moo xew <laughs> de xaaral mu ñëw xaaral mu ñëw woo tubaab woo naa ko jëluma tubaab benn daam Diop waaw. Mhm. Euh, Balla Gaye bu ma naa ko parce que ñoom ñaar ñii daaw géej waaye ñoo may xar. ren na mhm. non du ma yeggali sax damay bañ bañ maa mayaar xar ñu xool fii laay toog ne ma ren. <laughs> tubaab. ak Balla Gaye de. ak Balla Gaye de Balla Gaye numéro 2. ah Balla Gaye daf la war a may nag nga ñaanal ko sax. non non non dafa ah. Pape Jógee force la. waaw Pape Diogoy Faye de moom waaw Pape Diogoy Faye de suñu xarit la Pape Diogoy waaw moom moom moom dina may xar sax moom. moom moom dina moom xar. Ah, léegi. waaw Super. gars yi dañoo ñëw. kooku. kooku. oui Abbas. Euh, ci la kii naan ma bindal Sanjiri waaye yow tamit nag guerre day jeex. waaw ah. Sanjiri sequma ak moom xar sequma ak moom ganaar. mani waaw ne. Abba. waaw foo ne nii allo. oui allo El Hadj. foo nekk nii. voilà ma dem. waaw acca demal. voilà merci beaucoup yéen ñi nga xam ne nag dana na choisir la soxna choisir dañ fa jaaxee bàyyi nañ quelques arrondissements pour tey nga xam ne dañoo bàyyi ko bloc dem des Madeleine bu fekkee ak ni ngeen rek toog seen plein air parce que da ngeen di teg seen tànk rek daal di mën a progresser lu ni mel nag da nga koy def ba docteur de Soumbédioune foofu la aussi mën ko progressé utali fi nga xam moom mooy du côté de euh, euh, place souvenir Africa après utali porte du millénaire su ko defee aussi jaare ko Soumbédioune su ko defee aussi yéen ñu bàyyi ko foofu la mën dem progressé utali rond-point bu poste Médina foofu tout autour faw nga taaxirlu yéen ngi bàyyi aussi au niveau de Malick Sy aussi ci autoroute bi tout doucement ba si Malick Sy foofu lay jëm rond-point bi la fay xaaree fekk da nga jël deux voies centenaire yi se dégager mën ko progresser dans l'autre sens aussi bàyyi foofu lay aussi hôtel fi euh, nga xam mooy grande xaar ci boobu peintre professionnel du bâtiment wala particulier fagaru leen ak du bâtiment wala particulier fagaru ak Silflex bu coloris balaa nawet bi di ñëw mbaa xam ngeen ni Universal Color ànd ak expert coloris yi indi na leen revêtement étanchéité lii mooy Silflex bu coloris léegi moom mur toiture façade yuy seen jeex na ak Silflex da ngay tàllal ba fu la neex teg si dafa yomb lool moisissure moom ñemewul Silflex taw ak naaj moom <laughs> waxi noppi ngir yeneen di leeral woote leen si wala ngeen dem si sunu showroom 50 cinq rue Moussa Diop dem leen itam si sunu site web www.universalcolor.sn si coloris ta vie en couleur. Vous êtes sorti sans votre carte bancaire. Vous voulez envoyer de l'argent rapidement à quelqu'un. Express À partir de votre application EcoBank mobile ou via le dièse 2222 de retirer facilement votre argent dans un de nos 3000 points Express ou dans un GAB EcoBank à travers la zone UEMOA. Les frais de tout devient plus simple. EcoBank, la banque panafricaine. ak jur ci biir bu gaaw nga am xar bi nga dëgg ñu ngi koy nattee ca xarañte ki ko fent jur gi bi sédiment du repasse di qualité bu ñu ràññee ak manin bu bawoo ci lu ëpp fukki atu man-man ngir xaru tabaski ci diir jur gi laa dum ak jur gi tuaminant sédiment di leen ko jagleel tabaski bu neex jur gi lay àndal ewaay bu tabaski jotee ba ñu rendi xar ba def lakk bu toog tubaab bi nan ko bar ba kew kew kew ba ñu bégal njaboot gi yépp lan moo si desati nag li des mooy sañ sa ba rafet jaagar jaagar yi def sa selfie bu toog won ko sa ay xarit ak sa ay am di jàmm ren nag ca selfie bala ak téléphone TCL waaw waaw TCL portable bi Wally Seck ak Sadio Mané taamu ku mu selfie wul sa photo tabaski du ñu ko valider ah non non non non du ñu ko valider li si dàq mooy ba le 19 juillet soo jëndee téléphone TCL mën nga gagné punkalum xar. appareil photo bi moo leer ak ay fonctionnalité yu amul fenn téléphone TCL yooyu di nga ko fekk ca Cheikh Diba grand revendeur de téléphone à Touba Kabirex fii ci deux voies Sacré-Cœur Cheikh Thioub ca Ziguinchor performance service fii ci marché Tilène ndindi électronique informatique fii ci rond-point Sandaga ay ci leen gaaw ci Oumou Express commandé leen seen téléphone am seen xar ci www.oumouexpress.com requin avec un Xbet. Et vous Il gagne avec un Xbet. Et vous Il gagne avec un Xbet. Et vous Il gagne avec un Xbet. Et vous Un Xbet. Bookmaker Compagnie. te lii fan laa koy nettalee amaguma xar amaguma buum sëñ bi solal ma 10 000 francs gasoil ma daax sama wërsëg sëñ bi sa coono jeex na ak sa 10 000 nga sol mën nga ciy liggéey ba noppi Star Énergie yokkal la si tombola waa lii neexul méga promo tabaski daw si leen gaaw fii ba tabaski saa yoo jëndee njëgu 10 000 francs ci bépp station Star Énergie mën nga gagné xar bu mag ak ay loo yu bari dinañu am mbégteelu dalal leen ci suñu 45 stations yi nekk Dakar ak région yépp ma ne tabaski bu neexee nii ay <laughs> <laughs> wi sa man de yaa ngi may daaneel restaurant chez tonton ca Île de Gorée yéen ñi nga xam ne nag boo leen di dem Gorée da ngeen di yóbbaale ay lekk daal jaratu ko ndax restaurant chez tonton ngi nii ca Île de Gorée indil na leen saafara ndaxte restaurant boobee day am na ay lakk jën yoo amul fenn grillade la gi ginaar ak ay palaaw Sénégal yu neex ceebu jën yaasaak ñoom it seen waaw waaw am na sax fast food kon nag yéen ñi nga xam ne da ngeen di dem léegi Gorée seen restaurant chez tonton ma nga fa di leen xaar ci ay njëg lekk ba set na na na en tout cas ku fay dem daal Djibril Seck borom restaurant Chez ci 77 515 62 82. ma ne wey naa laaj yore dem nga waaw kii moom portefeuille moom la fàtt ci benn taxi jaune euh, bu jugee woon nag HLM euh, ñëw Kër Massar ay booru vingt deux heures vingt trois heures portefeuille bi nag am na carte bancaire CBAO Ecobank UBA carte nationale d'identité import export carte euh, commerce ak tuuti ci xaalis képp koo xam ne gis na ko nag na woo. Baye Saliou Kane mi ci 77 114 79 81 wala 77 557 09 41 jërëjëf waay sama rakk ni Mouhamed Mbaye borom tàntal na muy gi barki démb boo njaay Sorano. waaw la huit. laay barki yonent bi de huit. ah waaw. am nga daa am kii. Aca Sumer kenn ñëwul. 90 kenn ku bëggum xaar 90 ñu daal leen may nag euh, xar. aywa dañuy continuer ah tos. Mhm. Aca bisimilah. sama doom la léegi bu ma bu ma dafa ma xëyee dafa ñëw ma xeeli ko kafe fii mu ndékki sama daal di daw dem ci maama mu ne ko bàyyi ma taar looy jooy ma daal di na ma xëy marché ma xëy ma ñëw toog nii ci garab gi ma sama sët bi daal di ñëw ne ma siini ñëw na ma ne ko siini ma ne kaana siini mu ne mu ngi ci biir siini sama dooma waaw boo kooku jigéen la waaw siini daal di ñëw nuyu ma ci garab ne tuuti penn tamit jóge Dakar dafa demoon Dakar sama doom xam boobu tamit. mu taxe bi wàcce ko. ñu ne Penda ñëw na Penda boobu yëgoo ci dara. déedéet boobu yëguma ci dara. ba yëguma ci dara ñu ne Penda ñëw na Penda ñëw na ñu daal di dugg ci biir. ma daal leen woo sama wujj bi. maam maam Ndiaye Ndiaye Seck ñëw leen ma battre leen. ndax sama sama turandoo da doon am goro ñëw leen tey maa leen di battre. bu mu waxee loolu rek maa ngi taxaw nii moom mi ngi taxaw nee ñooñu bu ñuy laata ñoo sax eh, kii jabaru sama wujju peccor bi nekk fii dañ faatu mu daal di yëkkati rudd bi ne waa yaatal battre dafa jam nañ ko ba ñu sàppari yóbbu nañ ko jànnatu eh, jànnatu yére yére mas soloon sax de marché moom laa daal di penn daal di jël taxi yaa di ne noonu hôpital boobu loolu booba koy gisuma dara booba bi te bu ma demee tamit gisuma ko bi ma demee docteur yi nee na dañ koy faj sama doom bi gisuma ko fekk laa toog noonu nag ma fekk fi baayam ñuy bind ordonnance ñu bind ordonnance bàyyam jënd bépp tàkku sànni waaj a jot kenn na ma yaay dama toog ne Tafa xanaa day nelaw de yaay ma ne Tafa day mu ne ma waaw ma toog nii na wéeru ci biir booba rakk gay eh, sama rakk borom kër ma nga fa ku ma caane mu romb ma mu romb ma dox tuuti daal di sukk ci suuf. maa ngi toog ba mu yàgg mu daal di defeenu morom bi tey ko ci loxo mu bi fi loxo bi mu daal di mu toog ba mu yàgg mu daal de defeenu ci suuf mu daal di tëddi ci suuf ah ma ne kon togg bi ñor na. ma ne sama doom dee na. aye waay Tafa dee na waay. moo bëgg a jóg mënu maa jóg. sama tànki nanguwul ma raam. ñu toog foofu ne ñoom ñëw wër ma. booba euh, Guèye booba benn doomam a nga fa mu daal di ñëw téye ma man sax xaw ma kañ laa dugg ci taxi bi. fena di ñu ne seen ñoo ko ne Penda sa rakk bi ma man ba ma ko gisoon sax ndax Penda na dafa dugg mu ne ko Penda may ma ndox man naa waaye docteur yi nangu ñu ko may ndox sama doom bi dee leeral bi nga xamante ne yéen koy leeral ci dëkk bi liggéey liggéeyal Serigne Touba ñu ngi ciy sant leen ci sant bu baax. leen xam ci yu mel nii nag. yow loo man xale bi ñoo bokk bàyyi. waaw sama rakk la Euh, li nga xamante ne ni moom la ni wax ñëpp daal nga xam ne waxuñu ko xale euh, borom sare di rek gépp gone lañ koy wax. da ñëw tuuti ci histoire bi nga ci xam ba mu wax ci. waaw histoire bi xam nga dama la laaj ne li ma ci xam moom lay wax. li ma xam ci histoire bi mooy nit kun tooñ rek. Hmm. tooñ nag sun rakk lan tooñ. jam ko ay paaka mu andil ñu naqari xol woo xamante ne ni daanaka moo tax sax wax mënuñoo wax. ci tax man ko tooñ ci ci noonu ko tooñ. Euh, ni ñu euh, comme danoo wax ne da doon xeex. ci ni ñu waxee ñun fekke woon xeex ba. waaye li nga ci xam. waaw li li ci xam li nga xam ne mën na dégg ne moom lañ wax. mooy ki ko jam paaka. moom danoo wax ne. lan jotee daal moom dem ko paaka moom xamuñu ko waaye nag ku jam paaka moom paaka moom képp ku yëkkati jam nit dañuy jàpp ne mi jamee da tooñ moom loolu lan mën a jàpp ñun wax fekkiwun danoo mën a jàpp mi jamee da tooñ ndax jam amul benn loi bu santaane nga def ko kon nag ki jël paaka jam moom tooñ na kooku nag liñ koy sañ wax mooy liñ bëgg a wax mooy ñiy dox yoon te yor yoon ci dëkk bi nan jël seen responsabilité bu mat fi ci nii a a ñi yor nga xamante ne ñooy gendarmerie wala policier ci dëkk bi nan gën a taxaw ci ñii tooñ ñu di leen teg ay euh, daan yu wér yoo xamante ne képp ku bëgg a tooñati sa xel nekk ci boo boo demee ci loxo yoon. mbir mu ñaaw bi noo ko gisee. mbir mu ñaaw bi ni ko gisee mooy lu ñaaw moom kenn du ko bëgg te danoo war a fexe mu bañ fee amati xaar ba mu am ba pare ñu ciy wax sax daanaka a wax dëgg dëgg dëgg mooy wax nun nun def ba amati loolu nag mooy li ci jiitu mooy li la lay wax ni muy yar xale yi parents yi lii ci euh, li ci ëpp ci parents yi la jóg ndax bu amaana bu tegoon njaboot gi fan leen war a teg njaboot gi doon doxee nii ba ak si kon dañuy seen doom ba noppi ñu wax njaboot gi tamit ñu jublu lu baax ndax ku dem ba am fukki at ak juróom sa bàyyi mënatu la mënatu la dara sa bàyyi mënatu la dara yaa yor sa responsabilité bopp kon nag képp ku yor sa responsabilité bopp yow sa bopp yaay xool li nga xamante na ne di di jël ay paaka di koy jamaate lu lay jëmee gannaaw luy jëmee sa askan si gannaaw la luy jëmee askanu jullit ñëpp gannaaw la loolu nag ku nekk sa bopp te ku xamoon la mooy sawara képp ku rey sa mbokkum jullit ak doomu aadama bu mën koo rey ci sa tayeef la la sun boroom dig mooy yóbbu sawara te kenn du mënu ci dara bu addunaat xam na li ci dikk lu ñu xam ne sa kaw la tegu sama kaw la tegu sama kaw la tegu ndax kim dal maa ngi moom ñoo bokk sama rakk la kon sama kaw la tegu ci kaw famille bi yëpp la noo ko xalaat na yow duñ ci toog ay yan matuwaay nga ciy jël yow mag waaw jël mooy li ñu ci yoon laaj lépp ñu def lépp loo xamante ni yoon laaj nañ ci duñ ci bañ dara danañ ko topp lépp ba lépp luñ ci yoon may ñu jot ci loolu duñ ci jëfandikoo nag lu ñu yoon mayut ndax ay jullit lañ ay responsable si lañ xam nañ li ñu yoon may ah en en tout cas de. xam naa ni daal ay xale yoo xam ne dañoo nekkoon ci yaa ma yoreel yoreelew ma rek. Uh-huh. seenu fas di daan doole. Uh-huh. ba nattu gi wàcc seenu kaw. Uh-huh. ah métti na seenu njaboot de. te métti na tamit ci seenu waajur amiin na laaw des waaw tat tat. tey la quinze ou le seize. tey le seize. Ah. da mu ni dañoo am. nee na nañu woote nii. ah atia. 88 628 89 90 ma foogoon ne sax su ma jël numéro kon nag atia woote leen dugg leen allo allo. oui allo bonjour. bonjour. bonjour monsieur comment vous alhamdulilah et bien merci. bien votre nom. Euh, euh, Amadou Sall Gueye. Amadou Sall Gueye. oui. vous habitez où. Euh, Anne Marinas. Anne Marinas Anne Marinas ah ah Anne Marinas. oui ah, nag vraiment est-ce que vous avez besoin d'un mouton vous. c'est sûr. c'est sûr bien sûr que Anne Marinas nag yooyu nag allô. Anne Marinas ñàkkooloo mariné allo waaw kooku Anne Marinas kooku. Cheikh Diop. Cheikh Diop. waaw Colobane. ah Cheikh Diop Colobane. mooy mooy Cheikh Diop commerçant. waaw waaw. yow am nga tabaski. amaguma sama mag laa ko bëggal de man wax dëgg yàlla am naa. <laughs> ah eh. dama koo xam kii. Hmm. Cheikh Diop. Cheikh Diop luy sa numéro. allo. allo oui. waaw. tonton Ameth. kooku. waa Cheikh Diop daa dem. Cheikh xanaa yaa ngi fan. Plateau. Plateau noo tudd. ah. noo nu ma tudd. waaw. Aïssatou Mbaye. an sa papa. sama papa wàññeeku na. ndeysaan ndeysaan yàlla ko yàlla xare àjjana waaye ma ne. amiin yaa ilaahi. Aïssatou Mbaye. léegi lan mooy sa numéro Aïssatou. 77. waaw. zéro quatre vingt six. waaw. vingt. waaw. vingt huit. waaw Aïssatou. léegi loo bëgg. xanaa xar. xar nga bëgg. waa. da nga kër. kan ma. ah. déedéet. koo sa yaay. waa sama yaay. ak kan. ak doom. ah. waaw. d' accord kon kon Zik FM may na la xar dégg nga. waaw. allo. waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah kooku. Saliou Faye. Saliou. Faye. Saliou Faye. ñaari tali. waaw. nga liggéey yow sori woo ko ñëw Issa Rifa le Grand Dakar. mécanicien la mécanicien très bien Sali wax ma sa numéro gaaw. 77. waaw. 307. waaw. 14. 14. moom nekk sa moomoo ko xar moom nga yow ci atelier. xanaa moomoo ko. c'est sûr <laughs> damay woote. ah. <laughs> kon léegi Zik FM may na la xar dégg est-ce que est-ce que jërëjëf voilà merci voilà ñu koy sant voilà quoi voilà quoi ok merci eh, Simon ñëw na voilà d'accord kon nag euh, Aïssatou Mbaye ngi noonu nag euh, saxar mi insha allah rabbi madame Dramé ñoom sumeer dinañ la woo ak Saliou Faye mécanicien nag euh, waaw kay ku leen woo ni leen yónnee leen nag xaalis na ngeen bañ ku leen yónnee bu leen yónnee xaalis kenn bu leen wax seen numéro lii bu leen wax seen numéro laa la ca des. leen woo ne leen ñëw leen fii jël seen xar dem ñibbi. yàlla na yàlla dolli jàmm ci biir réew mi amiin rabbal alamin yàlla nu yàlla suturaal yàlla nu yàlla jàppale amiin sama seex bi sama jumeau bi amoon na sañse Cheikh Sarr yàlla laf cap yàlla guddal sa fan amiin rabbal alamin sama nekk fekk nga ma fu ma ne fekk ma fa fekk ma gendarmerie fekk ma police fekk ma hôpital fu ne léegi nag ma xool ba xam loolu day continuer fekk ma ci xarit Cheikh Sarr fu ma ne fekk nga ma jaaxle gu ma dugg Cheikh fekk Cheikh fekk nga ma police fekk ma gendarmerie Cheikh fekk nga ma tribunal fekk ma hôpital jaaxle fekk conférence Cheikh fekk ma ci xarit waaye ëpp naa def alaaji Ismaël Diop ak moo nekkoon ci xarale gi nag amatul problème xaar wax nii Mansour Diop ak ah, kay ah, Ismaël ana kan la dendal sa tukku tedd ki borom ma barrière or ba ca Médine bandax ci mbandi xore Serigne Ahmed Aïdara Kalala bu salama de la ville de Guédiawaye yaa ngi nii toog Simon ngi nii toog bref yaa ngi nii di leen jox ko ndig daal jee altine incha allah Expresso mi leen indil seen i forfait bourg yu ànd ak jot xaalis bu jógee bitim réew ñëw fii fay dara moo leen doon may